ci ñoo xamante ni nii dañ doon wax naan bu ñu góorgóorloo dëgg dëgg dëkk dëgg avant deux heures ñu yegg. yàlla yor yoon. yàlla nag boobu moom daal nay nopp nit jugee na fii dem ba Amérique jugee na fii dem ba France ba léegi di génnul aéroport noonu lañ ko refalee mu dellu soit fii ci ay mbokk lii nag leçon de vie la ci ñaari ci ñaari côté nag laa ko jàppee ñaari côté ñi gëm a di borom bi ak ñi soxla ñi ñaan baaxul. Hmm, musuma la de. lii yàlla bu ko yàlla dogal ci nit. su julli mën a mat. ñaan yàlla hmm. bu ko yàlla def ci doomu aadama jaara nga toog nii rek ne lii sama waa ji am yàlla dem ba dénk ko ab ndomba tànk jiiteem réew la plus haute fonction waaye diw nii yàlla bu mu ko am. loolu ak soxor yow amal candidat xeexle ko. mais allant jusqu'à yow mi nekk opposition sax booy wax au ngay wax ci Amadou Ba mais tu préfères attaquer un autre opposant surtout ki ne c'est le mieux placé mooy Diomaye loolu laa xamul lan la leçon leçon boobu leçon benn leçon soxor beneen leçon bi ñëw mooy Ousmane Sonko et sa position derrière le président Bassirou Diomaye Faye beneen leçon bi ma doon wax sànq ci soxor. Mhm. iñaane sa ndom. jaara jaara iñaane sa ndom dee bu ñaaw. Mhm. iñaane sa ndom dee bu ñaaw. ah oui leer laa la wax te iñaane sa ndom nag xawul dal waa affaire de moo leen dal. <laughs> kon mu si iñaane sag ndonn du ma ne moo xaw a dal PDS moo leen dal mhm. xeex seen biir rek moo leen du ma ne iñaane sag ndonn moo moo moo xaw a rey par socialiste moo ko rey iñaane sag ndonn du ma ne mukk moo tas moo xaw a tas par moo ko tas waroon nañoo am candidat bañ kër ga tas xalifa jaar ne kay jaar ne iñaane sag ndonn du ma ne moo xaw a tas AFP moo ko tas diggante Moustapha Niasse ak El Hadj Malick Gakou iñaane seen ndoonu du ma ne moo xaw a tax sax ba. ñoom da ko Macky Sall jël nguur gi de iñaane seen ndoon na tax ba Macky sàll jëloon nguur gi. Diop Diop mooy diggante Ousmane Tanor Dieng. Mm-hmm. dem si yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana. ak Moustapha mm-hmm. boo leen àndee yeneen dem deuxième tour boo leen àndul Macky Sall ci sondage yi mooy jógee à la quatrième place ñëw jël deuxième. soo leen àndee ak seen dooleeg appareil bi ngeen yor mën ngeen dem deuxième tour mën ngeen dem deuxième tour mën ngeen. ñenn ñi ne leen mënu ne ñenn ñi ne non non non seen appareil bi ñoom ñoo buñ booloo gën a gàtt dañ am léegi léegi léegi du gën a gën. mu ne ci naka la ñuy ànd ba ëppale Macky Sall. mu ne ñoom ñaar ci naka lañ mënoon a ànd ba ëppale Macky. non c'était dans le cadre du Benno Siggil Sénégal. waaw. xam nga Benno Siggil Sénégal dañoo nekkoon ci ay négociations demal nga xoolaat seen taux de pourcentage yi par rapport ak Macky Sall. Macky leen ëppale boo boole ñoom ñaar ñëpp. non ni ñu xeexee woon moom moo tax. ah kon baax na. ni ñu xeexee woon ni ñu xeexee woon bu ñu ko xeexeewuloon ñoom mën nañoo ñoom mën nañoo raw Macky Sall. Mhm. mais defuñu ko parce que avant ñu faa yegg rek opposition bi yëpp tas na ñoom ñaar ñoo fa mujj des mais ñu ñooñu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñi toogoon fii yëpp saa xanaa Tanor Dong tooguloon fii de ak Moussa Wañas day kenn demul campagne ñu boole woon laa la wax. def ko Macky Sall dem dugg jëlal seen taux nga xool ba xam dina ëpp vingt pour cent waaw wala déet mais loolu amul bu ko defee nag Ousmane ko mu joxe leçon de vie man bu dul man du doon keneen duma dem doo dem te loolu nag yàlla na ma yàlla jéggal ba ci suñ këru liggéeyukaay yi loolu fa am te plus proche ñoom ñoo naan yow ki kii waruma raw. yàlla mooy dogal ci jaamam lu ko neex yàlla mooy xool fu dara nekkul mu def fa dara. dëgg yàlla moom mooy xool nga nekk njiitu kii mu dem ba ci yàgg ba yàlla ëlbati mbir yi ba doon sa njiit ana ki taxawoon ne ba Bassirou Diomaye fay au niveau de la direction générale des impôts man maay directeur xam naa nag li may génn ci télé bariwul c'est moi qui suis son chef fi mu nekk man maay patron dama bëgg expliquer nit ñi waa kooka kaka jiite. di directeur directeur général des impôts et jiite nag moom ci boppam di ministère de ministre de l' économie et des ki ko jiite nag moom di premier ministre ba ki ko jiite nag di président de la ma Macky saw léegi jomaa yi leen jiite ñoom ñëpp. mooy seen chef. waaw <laughs> mhm. ah, dogal bi jiitu na. non ki ne woon man kii fii ñuy liggéeyee nii. Hmm. parce que direction yi day am fii liggéey man maa ko jiitu nekk ci meeting yi. di ko yëkk njaay ak njaay li ngeen di wax ci Amadou Ba yàgg Sonko xaw ma yéen c'est de bonne mais toog ne man la affaire bi man la. Hmm. te Youssouf. je man man man man man man man man man bu yàggee sax nag doon bokkaale. man man man. noonu la soxla man man man man man man man. waaw ah, parce que man non non c'est que man bon yii dépassé naa ko léegi. waaw ah, parce que da nga ci gën a yàlla. revue des titres yi revue de presse du ma ko dépassé déggoo ma de ba doon président de la république damay toog ne man lii mooy sama métier ci lii laa amee woon teraanga. dëgg la politique du métier. Ousmane Sonko nag loolu la wane ba pare ci taxawaay bi diplomatiquement ci taxawaay bi. Ousmane Sonko nga tàmbalee keroog bañ génnee ca kaso xoolaatal ma photo yi ak vidéo yëpp fenn foo xam ne di nga fa gis rek. Ousmane Sonko mu buuxante xale bi. wala mu taxaw ci kanam wan gars yi ne moo moi qui suis le président du parti xam nga li ma la président parti kay yow yaa war a nekk ci kanam mais danga nga tànn benn candidat benn war nga ko jaay yàlla nag moom mooy maye bayre bayre tolloowul de mais moom jël na bayreem ci boppam. teg ci ginnaaw indi chaque jour sa xoolaatal oto yi rek ci campagne ba keroog ñu tàggale ko ñoom ñaar xoolaatal itam ñoom ñaar bu ñu toogee waaye xoolaatal tamit bu ñuy génn ba ci seen vidéo bi dem bi ñuy départ di génn si hôtel bi pas bi ñu yegg si fii ñu génn bi ñu yegg see fii aussi ba ne cëpp buntu pare moom moo njëkk a di ñëw nii il pouvait le devancer nuyu la protocole il est resté derrière taxaw xaar ko bàyyi président de la république bi nuyoo ba pare mu nuyoo bi ñu yeggee liggéey liggéey bi. Mhm. il pouvait nuyu ko suñu rakk jaa ngi nii présenté kaka il ne l'a derrière le président de la république taxaw ba waa ji ba pare moom mu ñëw. ay leçons de vie yu bari. Mhm. yoo xam ne image bii démb ku demul école war nga cee jàng. Mm. ah oui. attention. <laughs> yàlla mel noonu. ku demul école démb waa ji tëgg na fi université moom Ousmane man nag image yi noonu laa ko jàppee. démb di def nii. di di ko waaw di di di xool. parce que adduna lépp njàngat la. Mhm. man xooluma photo yi noonu rek jël ko rek publier ko sama page Facebook doog a bind. Mhm. leçon de vie. d'accord très rapidement ñu dem ci euh,